daret mooy ngay wax ngay maanaam xamu ci ñoom nuñ ko jàppee ah mooy li ñuy bañ nga toog muy dox mais bii da wax da ngay wax lu dul dëgg muy dox te loolu su nekkee dafa am si askan jaxasoo lay andi xiiroo ak ŋaayoo lay andi conflit d'intérêt lay andi soo duggee ci biir entreprise yi les lanceurs d'alerte ont une position ils sont membres de la cellule de communication mais qui sont qui qui occupent la la la la fonction de veille informationnelle kooku liggéeyam ci biir entreprise bi wala ci biir société bi. mooy naka lay def ba xool concurrent yi mu defar fiche am informé su amee lu ñaaw lu war a ñëw dal ci biir entreprise bi mu informé parce que kooku professionnel la jàng na ko mais doo ñëw nag ne da ngay protéger lanceur d'alerte yi te koo xamante ni xamul métier bi liggéeyu ko xamu ci il n'est pas discret daf ko def rek pour pour pour pour pour yoole comme ni ko xale yi di waxee boobu baaxul.